أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara bëgg dikkaat ànd ak yéen ci bind yi nu baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu ne di ko nafarandoo ak yéen waaye di ko toxale ci téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la yaxal tudde ko nahju qadaa'il xaaj ñu ci doon ànd ak yéen ci bind yi weesu yépp ba ci sun bind bi weesu ñu taxaw fi nga xam ne ci la sëriñ bi doon la junju ci ki nga xam ne soo demee bay wutab àndandoo moom nga war a àndal waaye ki nga xam ne moom nga war a jàppe ab àndandoo ngir ne nit ki ki nga xam ne moom lay àndal rek ci moom lañ koy natt ñu taxawoon ci bayit bi nga xam ne ci lay wax ne ñenn ci boroom xam-xam yi wala ñenn ci waykat yi wax nañ ne saa boo demee bay ànd na nga xool ca nit ña ña ca di aw tànneef nga tànn leen ànd ak ñoom waaye bul tànn mukk koo xam ne dafa alku ngay ànd ak moom ndax ku alku day yóbbe nit ki ci alkande kon booy tànn na nga tànn ñi nga xam ne ñooy tànnee fee ca nit ña nga ànd ak ñoom mu ne anil mar'i laa tas al bul laaj anil mar'i ci cemsi was al na nga laaj an qarinihi ci ab lëngoo waayam an ab lëngoom fa kullu xarinin bépp aji lëngoo yaxta bi day roy bil mu xaarani ca ka nga xam ne moom la lëngool wala ka nga xam ne moom la lëkkool nee na bul laaj mukk nit ki waaye laajal kan la lëkkool di ànd ak moom ndax nee na képp koo xam ne moo lëkkoode ca ka mu lëkkool rek moom lay roy kamu lëkkool di ànd ak moom fu mu toll kooka lay roy moo tax mu ne soo bëggee xam nit ki bul ko laaj ne ko yow yaay kan waaye laajteel kan lay àndal su ko defee ka muy àndal na mu mel rek da ngay xam ne ca melokaan yooyu rek moom la jëmm jooju nga nar a laaj nu mu mel noonu rek la mën a mel mu ne wala takun bul nekk mul tafitan di aji geesu lil asaraat ñeel ay pakastal wala tubaaxis bul gëstu abadan faw anawraat ci ay ay yibi nit ne na bul geesu mukk ay pakkastali nit maanaam nit ki fakkastalu nit ki juum ngay geestu ay njuumteem wala nit ki am ay ay ay ayib nga koy gëstu ngir bëgg koo xam ne na bul def loolu mukk ndax loolu bokkut ci ay teggi kon nit ki bu amee ay njuumte yoo xam ne def na ko bul geestu di ko fàttali nit ki su fekkee ne dafa am ay ayib yoo xam ne mi ngi ci jëmmam wala mi ngi ci ay jikkoom bul ko ko xoole waaye bul jiima gëstu ayib yooyee ndax mën naa am suñu borom bi subhanahu wa taala nëbbal na ko ayib yooyee kon bul ko gëstu mukk ngir di ko feeñal ndax loolu dafa dàqonte ak ay teggin moo tax mu ne yaani li mu jublu anna min al adabi naka bokk na ci ay teggiin alxasanati yadi aji rafet an la takuuna nga bañ a nekk taaliban di aji sàkku lil asaraat ñeel pakkastali nit ñi maanaam ñeel njumte nit ñi wala tubaaxis bul gëstu itam abadan ba faw anil awraati ñeel ayibi nit ñi kama xiila ni ko mu ko waxe ne na li mu jublu ci wax jooju bokk na ci ay teggiin ya nga xam ne yu gërëm la bokk na ci teggiin yu rafet nit ki bañ di sàkku ay pakkastal maanaam ay njuumte yoo xam ne nit ki def na ko ngay sàkkoo xam njuumte yooye ngir di ko xoole wala ngir di ko xeebe wala ngir di ko ci sikkal nee na loolu de bokku ci ay teggin te it dàqonte na ak jikko ju rafet bu baax a baax kon nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax mu ne it bul gëstu li nga xam ne moo nëbbu ci nit ñi maanaam li nit ki di nëbbu ci ay ci biiram muy ay awra yoo xam ne bëggut ku ko xam wala bëggut ku ko gis nee na loola bul ko bul ko gëstu mukk ngir bëgg koo xam ndax loolu dafa bokku ci ay teggin moo tax mu ne kamaaxi la ni ku ñu ko waxee laa taltamis bul sàkku min uyubi naasi ci ayibi nit ñi maa la nga xam ne sataru nëbb nañu ko fa yahtika muy xotti allahu yàlla sitran sutura an masaawika ci say ñaawteef nee na bul sàkku mukk ayibi nit ñi la nga xam ne moo ca nëbbu nee na bul ko sàkkoo xam mukk bul ko gëstu mukk ngir bëgg koo xam ndax nee na loolu xotti seen worma la waaye xotti seen sutura la te képp koo xam ne xotti nga suturaay doomu aadama suñu borom bi subhaanahu wa taala day xotti sa sutura yow tamit daal di génn say ñaawteef kon moo tax mu ne bul sàkku mukk ngir génne ayibi nit ñi di sàkkoo gëstu seeni ayib ngir génne ko waaye di sàkkoo gëstu seeni ayib ngir di leen ci xeet nee na bul def loolu mukk ndax saa boo ko defee da ngay xotti seen worma xotti seen sutura te boo xottee seen worma xotti seen sutura suñu borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo la suturaal moom tamit noonu rek lay jëflante ak yow daal di feeñal sa ay ñaawteef moo tax mu ne waskur na nga tudd maxaasina ma lu rafet la nga xam ne fiihim nekk na ci ñoom isa zukiru ndeem yaa ngi leen di tudd nee na saa boo demee bay tudd nit ñi day na nga fexey ba tudd jëf ju baax wala jikko yu rafet yi nga xam ne moo nekk ci ñoom waaye bul tudd mukk seeni ayib bul xotti mukk seen warma na nga fexey lu baax li nga xam ne moo nekk ci ñoom rek nga koy génne waaye bu leen tudde leneen moo tax mu ne wala taib bul sikkal ahadan kenn minhum ci ñoom bi maa ca la nga xam ne fii kaa nekk na ci yow ne na soo demee bay tudd kon na nga leen tuddalu rafet waaye bul bu leen tudd mukk ngir di leen sikkal bu leen tudd mukk ngir di leen xeeb bu leen tudd mukk ngir di leen tuutal bu leen tudd mukk ngir di xotti seen worma waaye bu leen tudd mukk ngir di leen tudde ak xeebeel wala nga leen di xool bët boo xam ne bëtu xeebeel la ndax ne na loolu saa boo ko defee xotti nga seen worma waaye xotti gi nga xotti seen worma suñu borom bi subhaanahu wa taala noonu rek lay jëflante ak yow yow tamit mu feeñal say ñaawteef bu baax a baax kon fexeyal ba nit ki lu mu am ci ay ayib bu fekkee ne cër bu manqué la fexeyal ba bu ko dee nëbb na nga ko ko nëbbale bu fekkee ne ay jikko yu ñaaw la nekk ci biiram mu koy nëbb na nga fexey ba di ko nëbbale même nit ki su fekkee ne dafa dem bay def loo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëmu ko sax te mu koy nëbb di ko suturlawu te nga xam ne daganut gënut mu koy def na nga fexey ba na mu koy nëbbee nga nëbbale ko waaye bul ko feeñal mukk di ko gàcceel ci nit ñi mu ne wakkun na nga nekk kama xaala nit ki mu waxee ashairu waykat ba nee na na nga nekk comme ni nga xam ne noonu la ko waykat ba waxee waykat ba daf ne uhibbu bëgg naa sopp naa makaarimal axlaaqi tedd ngay jikko juh di sama kem kattan may farlu lool di ca jëm wa akrahu may sib di bañ an oyiba ba deefi ma ayibal wa an oaba ak may ayibale nee na waykat bi dafa waxan ne man de sopp naa jikko ju rafet bu baax a baax te it may sonn fu ma toll ngir di ca jëm may def sama kem kàttan ngir di am jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm waaye it noonu laa bañe noonu laa sibe koo xam ne daf may ayibal waaye noonu laa sibe tamit di ayibal nit ñi kon ni nga xam ne noonu laa bañ ku ma ayibale noonu laay sàmmonte ba duma ayibal benn doomu aadama mu ne it wa asfaxu te it damay jéggale an sibaabi naasi ci ŋàññ nit ñi xelman ngir xelu ak lewet wa charru naasi ki gën a yées ci nit ñi man mooy ka nga xam ne yahwa dana sopp asibaaba ngaññante ga waykat bi nee na ba tey man de damay jéggal nit ñi nga xam ne dañuy ŋàññ di jëmale ci man ngir am xel moo xam ne am naa ko di ko jëfandikoo waaye ngir lewet goo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala def na ko ci man waaye xam gu ma xam ne ki gën a yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne moo sopp ak ŋàññante nga xam ne fu ko nit waxee wax ju bon mu delloo ko ko kon na nga fexey ba jiima mucc ci làmmiñu nit ñi bul bul di ŋàññante ak nit ñi ngir ne nit ki gën a yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne li mu sopp rek mooy ak ŋàññante ak waxante lu ñaaw ak waxante lu bon ak tuddante ay ay bi nit loolu dafa dàqonte ak ay teggiin tey du jikko ju rafet moo tax shaayir bii wax ne dinaa jéggale ŋàññ yi nga xam ne moom la ma nit ñi di ŋàññ ngir xel moo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala jox na ma ko mu koy jëfandikoo waaye it ngir xam bu ma xam ne ki gën a yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne moo gën a bëgg ak ŋàññante waaye ki nga xam ne moo gën a bëgg bëgg di waxante lu bon waaye ki nga xam ne moo gën a bëgg di feeñal ay bi nit ñi te moom ci boppam mi ngi ak ay ayibam yoo xam ne bëggut kenn ku ko feeñalal waman képp koo xam ne haaba weg na arrijaala góor ña wala nit ña taxaya buubu ñu weg ko waman képp ko nga xam ne xaqara xeeb na arrijaala góor ña muy gaaña falan yu haaba deefu ko weg mu ne képp koo xam ne day wek nga nit ñi maanaam yaa ngi jëflanteeg nit ñi ci worma yaa ngi teg nit ñi ci seen place yaa ngi leen di wormaal di leen jox cër bi nga xam ne moom lañ moom weg leen ne na képp ku ko def rek nit ñi ñoom dañu lay delloo cër boobu dañu lay wormaal dañu lay wek comme ni nga xam ne noonu ngay jëflante ak ñoom waaye kazalika képp koo xam ne dangaa xeeb nit ñi di wuññi seeni ayib di wuññi seeni ñaawteef nee na noonu rek la nit ñi di jëfandikoo ak yow duñ la wekk waaye duñ la teg fenn jëpp ayib joo xam ne moom nga amee man nañ koy wuññi fu ñu toll te loolu jëflante booy jëflante ak ñoom muy ñaaw ngir di génne seeni ayib ak yi nga xam ne bëgguñu ku ko génne da koy génne loolu rek moom lañ lay delloo moo tax mu ne wala xat axsana rafetal na man ka nga xam ne xaala wax na ija sita ndeem sopp nga an tax yaa nga dund wa diinu ka te sa diine saalimun di aji mucc wa xazzu ka sab cër maw fuurun di lu ñu lëwal wa irdu ka ab sabder sayyinun di aji ñoŋ lisaanaka saw làmmiñ laa tazkur bul tudd bihi ca moom awratam ri'in awraay jënn jëmm fa indaka ndax ñeel na la awraatun ay awra wali naasi waaye ñeel na nit ñi alsunun ay làmmiñ ne na su fekkee ne da nga bëgg a dund day te sa diine mucc nga xam ne kenn du laal sa diine sa cër bi nga xam ne moom nga am mu ñoŋ kenn du ko kenn du laal sa sa sa say jikko kenn du wax ci yow lenn lu ñaaw nga ñoŋal sa der ba nga xam ne kenn du wax baat bu ñaaw ci sa ginnaaw nee na bul tudd mukk ci sa làmmiñ wi awray jenn jëmm ndax ni nga xam ne noonu nga amee aw làmmiñ di tudd awray nit ñi noonu la nit ñi amee aw làmmiñ tey gis say awra man koo tudd kon bu fekkee ne bëgg nga dund dund ci jàmm sa diine ñoŋ sa sa der ñoŋ cër bi nga xam ne moom nga war a amee nit ñi jox la ko warmaal la teg la place nee na bu boobaa na nga fexe ba bul tudd awraay ke jënn jëmm ndax ni nga xam ne noonu nga xamee awraay nit ñi di ko tudd ñoom tamit noonu lañ xame say awra man koo tudd te ni nga amee aw làmmiñ di tudd seeni awra noonu lañ amee aw làmmiñ ñoom itam mën a tudd say awra waaye mën a tudd say ñaawteef yoo xam ne da nga koy def nee na wa in absarat ndeem xool na ay naaka say gët ay ban ayib faqul na nga wax lahaa ñeel leen ñoom sa gët yooyu fala tubsiri bu leen xool yaa aynu yéen sama gët yi leen naa si ñeel na nit ñi ayunun ay gët ñena saa boo xamee ne sa ñaari bët yi day joxoñ nga ko ñuy xool loo xam ne ayibi nit la na nga leen wax ne leen bu leen xool ayibi jàmbur ndax ni ngeen di xoole ayibi jàmbur noonu la nit ñi amee ay bët mën a xool itam samay ayib kon yéen sama ñaari bët yi bu leen xool ayibi jàmbur ndax ni ngeen mën a xoole ayib bi jàmbur noonu la nit ki tamit amee ñaari bët mën a xool samay ayib kon na ngeen fexey ba gëmmu ba bu leen gis mukk ayib bi jàmbur bu ngeen ko gisee sax na ngeen ko dummóoyu te bu leen ko xool bu leen ko jiima xeeb ca ayib ya nga xam ne moom la am mu ne waxlam na nga xam bi anna xulfa waxdin naka wuute ab dig wa kasibin ak wax lu juuyoo ak dëgg min aafatil xadiisi bokk na ci liy gàkkal waxtaan anhuma ñoom ñaar ittanit na nga leen moytu nee na na nga xam ne wuute ab dig mooy joxe ab rendez-vous bu pare wuute ko walla nga wax ba pare la nga wax safaanoo ak li nga xam ne moo am nee na ñaar yooyu de bokk na ci li mën a gàkkal waxtaan kon nee na na nga leen moytandiku bu baax a baax a baax a baax wa fil xadiis yi nekk na ci xadiis wa fi wa fii xadiis yi ma nekk na ci xadiisu ka nga xam ne nu diimu dana nu saxal asalawaata ay julli muy ay ñaan alayhi ci moom bil aali ak ay ñoñom wa sax bi ak i saxaabaam asiqaat ña nga xam ne ci ñoom la ñuy dëgërloo aleykum nee na maa ngi leen di dénk alxadiisa xadiis ba kun na nga nekk saduqan di aji dëggal wal ka wajtanib te nga moytandi ko alkaziba wax lu juuyoo ak dëgg li kay tafuuxaa ngir nga kawe nee na nekk na ci xadiis yi yonente yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la ñuy sax di ko ñaanal jàmm ak xiiwal ak yërmande suñu borom di wàcc ci kawam fu mu toll moo ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi ak waa këram nee na xadiisam yooyu di nekk na ca mu ne na nga nekk nit koo xam ne nit ku dëggu ngay doon waaye na nga moytandiku wax lu du dëgg ngir ne su fekkee ne bëgg ngaa am ak kawe boo fekkee ne bëgg ngaa am ngërëmul suñu borom subhaanahu wa taala na nga moytandiku wax lu juwe ak dëgg bu baax a baax te nga fexey ba lépp looy jëfandi jëflante ak nit ki mu doon loo xam ne lu dëggu la ngir ne ci dëggu rek ci ngay mën a amee ak kawe waaye ci ngay mën a ci ngay mën a amee ak kawe ci ngay mën a amee ngërëmul suñu borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne wal kaziba tanit li kay tafuuxaa nee na na nga moytandiku bu baax wax lu du dëgg su fekkee ne bëgg ngaa am ak kawe bu fekkee ne bëgg ngaa am ak yëkkatiku ci beneen xadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam di fa wax le ayatul munafiqi thalaasun mandargaam naafiq de ñett la ñu ne ko yan ak yan la mu ne bi ci jiitu mooy isa xadatha kazaba mooy koo xam ne saa bu waxtaanee ak yow rek wax la lu du dëgg wa isa waxada axlafa ak koo xam ne saa boo xamee ne jox na la ab dig jox na la rendez-vous ba ngeen war a daje bu boobaa rendez-vous boobee dana ko wuute wa isa tumina xaana saa boo ko wóoloo ba dénk ko sa mbir wala nga wóolu ko ba dénk ko sa secret mu wor la ca la nga xam ne moom nga ko dénk kon loolu benn bu ci baax ci ñett yooyu amut te it képp koo xam ne yor nga ko na nga xam ne yor nga mandargaay na mandargaam naa fekk kon nit ki war naa fexey ba di dëggu ci ab jëflanteem waaye di dëggu ci jëflante bi nga xam ne moom lay jëflante ak doomu aadama mu ne yaani li mu jublu annahu naka moom yonente bi saa sallam yu siika dana la dénk bi an laa takziba ci ngay bañ a wax lu du dëgg wa bi an laa taxlifal waada ak ci nga bañ a wuute ab dig maanaam ab rendez-vous wayen xaaka mu lay tere an huma walif ñoom ñaar fa innahuma naka ñoom ñaar de aafatul xadiis yi ñooy gàkkal waxtaan waxat xaala wax na rasulullahi yonente bi yàlla bi salla yàlla na doole xiiwal allahu yàlla taala kawe na alayhi ca moom wasallama te mu dolli ko musal mu ne aleykum maa ngi leen di dénk bi sidqi ci dëggu fa inna sidqa naka dëggu day yahdi day jubale nit ki ilal birri jëmale ko ci ak mbaax wa innal birra naka ak mbaax de yahdi day jëmale nit ki ilal jannati jëme ko ca ajjana wa ma yazaalu du deñ ar rajulu waa ji yasduqu di dëggal waaye taxarraa te muy nattale di gëstu a sidqa dëgg xatta yak yuktaba ba deefi ko bind indallaahi ca suñu boroom siddiixan muy aji dëggal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi leen di dënku dëgg dénk kat ngeen di dëggu ci seeni wax ak seeni jëf ndax dëggu kat mooy li nga xam ne mooy jubale nit ki jëmale ko ci ak mbaax mooy jubale nit ki jëmale ko ci ak ragal yàlla mooy jubale nit ki jëmale ko ci ay jikko yu rafet waaye mbaax boobu nga xam ne moom la koy jubale ak ragal yàlla boobu nga xam ne moom la koy jubale ak jikko yu rafet yi nga xam ne moom la koy jubale loole moo koy xëcc ci jëmale ko ca àjjana waaye nit ki du deñ di dëggu maanaam waa ji du deñ di dëggu di nattale dëgg di gëstu dëgg ci ay waxam ak ay jëfam di ko jëfandikoo bañ bind ko ca suñu borom bi subhaanahu wa taala ne waa ji kat nit ku dëggu la waaye nit la koo xam ne lépp lu muy def dëgg la cay jiital dëgg lay jëkkee cay dëgg lay mujje mu ne wa iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wal kaziba ak fen fa innal kaziba ndaka fen de yahdi day jubale ilal fujuuri jëm ci ak kàccoor wa innal fujuura ndaka ak kàccoor de yahdi day jubale ilal naari jëmale ci sawara wala yaasu billah wa ma yazaalu te it du deñ ar rajulu waa ji yakzibu di fen wa yataxarraa te muy nattale di gëstu alkaziba fen xataa yuktaba ba def ko bind indallaahi ca suñu boroom kazzaaban mu di ab waxkatu lu du dëgg ne na maa ngi leen di moytandikuloo fen yitam wax lu du dëgg maa ngi leen koy moytandikuloo ndax képp koo xam ne dangay wax lu du dëgg loola mooy daytalum ñaawteef te ci loolu ci ngay fàggoo jikko yu ñaaw yépp te loolu ci lum lay yóbbe rek mooy ak kàccoor ak jëf ju bon ak wax ju bon ci la lay yóbbe te loolu muy wax ju bon ak jëf ju bon aku kàccoor ci lan la lay yóbbe sawara rek la lay yóbboo te it waa ji du deñ di jëfandikoo di wax loo xam ne du dëgg di ko jëfe di ko waxe ba dem ba tàmm loolu ba mujj ñu bind ko ca suñu borom subhanahu wa taala ne waa jiikat ab waxkat waxkat lu du dëgg la lépp loo xam ne moom la wax rek day juuyoo ak dëgg su ko defee loolee di lu bon loo xam ne dañ la koy seereel bindal la ko suñu borom te loola fam lay yóbbe rek mooy ci ak bon la lay yóbbu waaye ci ak tàbbi sawar a ëllëg yawmal xiyaam la lay yóbbu wala yaasu billah kon loolu moo tax nit ki war a fexe ba ay jëfam lépp lu muy jëf mu doon loo xam ne lu dëggu la ci moom waaye muy fexey bay dëggal waaye di fexey ba jubal ngir ci jubal ak dëggal rek ci la mën a ame ngërëmul suñu borom ci la mën a amee ëllëg fay suñu borom waaye muy fexey bay moo tandiku bu baax wax loo xam ne day juye ak dëgg lu mu mitti mitti nit ki dafa war di wax dëgg ndax dëgg moom moo koy yóbbee ci li nga xam ne mooy ngërëmal suñu borom bi subhanahu wa taala kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ne lu ci dëng ci ñun la lu ci jub ñu ngi koy sant suñu borom di wax ne in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh